يا مكرم ضيفي جارا كان وزارا يا مايا أخادي من قبل أزارا te yàlla sa borom ñu ngi jële ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem bokk jullit yépp fi teew ñu nuyu mboolem jullit yi seetaan bu mën a nekk ci biir réew mi ci réew di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi seen Muhammadul Muntaxa di ñaan sa borom yàlla ko di nuyu mboolem jullit yëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci kattan loo xam ne lu ci jigéen ak lu ci leere ci bopp yi ci ko def jàpp ma rek di am di ci suñu borom tabaraka taala te di ko moom mi ñu mayoon dàttal tawfeex mu toog fii daaw ngir tàmbali liggéey yi nga xam ne liggéey bi sëriñ bi la ñu dundal weeru koor fii ci jumaa ji ci waxtaan yi nga xam ne dañ koy def ak iftaar yi nga xam ne dañ koy def muy rob yi nga xam ne dañ koy def fii ci jumaa ji ci ndigalum sëriñ tàmbali ko ci diir bu yàgg depuis deux mille cinq ñu ngi koy def ci wàññi ci digal Cheikh Saliou Mbacké ñu tàqale woon ba tey jii Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla yàlla gën a yàggal Lady Roman wa dafay laaj waxtaan maanaam dafay laaj jamono ñu waxtaan day laaj waxtaan lii lañ jàngale ko wala ko am na nag juróomi fatawa ay fatawa fatawa yoo xam ne diggante ci ak ay wut yi yoo xam ne laaj yi nit ñu fi rob danañ ko topp ci biir koor ci biir xam ba yi nga xam ne ko ak moom tamit juróom-ñeent yi tomb yoo xam ne ay cours cours dafa la yoon yoo xam ne li ci jàngal nit ñi jàng ko ñebe bi mën cee fàttali wala mu rafetlu wala mu xam ci lu tomb loolu tomb bii ñuy ubbee nag bokk ci tomb ci cours yooyu euh, xam ngeen ne dañoo dugg koo kon jaaru na ci ci norme boo xam ne dañuy fàttali day bind ci nan la ñuy daan dañ ko def loolu nag tahta tentang saum ramadhan mahal mahkam mana sering dia hati mampai ofan dan yang jangan lagi mesti diri juga jauh tadi lalu mereka tegdek ajib juga yang dipokok mana itu orang tu dari lagi kedua yang akan menjadi lagi pakai yang akan menjadi ñeenti depuis ñeenti tomb yooyu bi ñu ma ko defalee loolu la ñu koy jàngale léegi ñu war jaar nag sëñ Cheikh bi sa dimbale sëñ Cheikh bi sa doon di kenn ci ñi nga xam ne euh, yàgg na doon am jataay bi kenn day xam ne lu ko bokk ci ñi nga xam ne bokk na ci ñi gën a jàpp ci liggéey bi ci wàllu fànn gi fan ak bu jot ñu koy àndal ñoom kon su ko tànnee muy jàngale kat yolda yang alquran ak xam-xam saa su nekk kon su ko joxee nit ñi jàpp na ne danañ ñu ci indi yang am njëriñ lu nawet si ñoom kon su ko defee dañuy di allah sering dia yàlla ko di ubbi liggéey ñu ngi koy xaar muy allah allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ci nuyób lislaam boobu bi ñu sunu borom tànnal te jiital ci kuréel bi nga xam ne ñooy saytu liggéey bii di daaira muqaddimatul xidma jaarale ko ci sunu mbokk di sunu wëllëre di suñu lépp di sëriñ Abdul Ahad Buso yi nga xam ne jataay bi yàgg nañ ko ànd ak moom di leen ndokkeel ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawe jamono ju nekk jumaay Cheikhul Xadim ji waaye rawatina nag weeru koor di liggéey boo xam ne ñun ñépp la war ñu wutuñu ci kon ñu ngi leen ciy ndokkeel di ñaan suñu boroom mu nangu yëngu yépp di am mbégte bu baax nag ci teew gi ñu teew ci barab bii ngir ànd ak ñoom liggéey bi di ci sant sunu boroom subhanahu di ñaan jubluwaay yi nga xam ne moom la ñu ci am te mooy liggéeyal yàlla liggéeyal cheikhul xadim sunu borom defal ñu ci lu kawe sunu njort ni ko sëriñ Abdul Ahad waxee tomb bi nga xam ne moom la ñu joxoon ngir ñu war cee def ab gëstu ñi ngi ko tënkoon ci sawmu ramadaana maqasidul ahkaam muy bind boo xam ne dafay aju ci xam-xamu fiq ndax ku ne xam na ni euh, jataay yi mën nañoo wute ndax jataay mën naa am boo xam ne day nekk muhaadara boo xam ne kiy waxtaan mën naa wax lu amal nit ki njariñ waaye nag mën naa bañ a aju ci dëggi dëggi na muy jaamoo yàlla ndax yu baax yi bari nañ mën nañ koy fàttalee ku mën nga def waaye lii nga xam ne nag képp ku dib jullit di mu kàllaf sunu borom da koo gàcc ci saw loos saa boo ko teewee nga war koo def kooku dafa bokk ci yi nga xam ne jullit bu nekk war naa fexee gëstu wala war naa fexee jàng ba xam ni nga xam ne noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ci ne noonu la war a woore ndax ki xamul ni mu war a wooree kat mën naa woor ay at yu bari te du ca jëli lu dul ab xiif man nay xiyaam ay at yu bari te du ca jëlee lu dul ñàkk nelaw guddi rek loolu nag wala ayaasu billah te ni waa daaira bi def nga xam ne tànn nañu tomb bi mu dikk ci njëlbeenu weer wi dana dimbali képp ku bëgg xam ba li des ci koor gi moom nga mën xam nan la ñuy xam lu bari ci atay ramadan xamit ay maqasidam ay jubluwaayam ndax maqasidu sharia day lu am am solo ci ibadat yi wor nak dimi sawmu rek buñ ko waxe moy ramadan ak ci lu dul ramadan fuqaha yi dañuy wax ne rek moy nit ki téye ñaari mbiram yi muy biiru bopam akum peyam wala lépp lo xamne dafa dafa taxaw taxawayu ñaar yooyu mu fexe ba téye ko li tambulé ci fenkuk fajar ba sowuk jant fim tambulé fim yam mom sun borom subhanahu wa taala mo jàngal ci alquran ni wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alxaytu labyadu min alxayti laswadi min alfajr summa atimu siyama ila layl kon lolu moy wone ni fajar lay tàmbuli sowuk jant lay am nit ki nak def ko ba nopi nak taqarruban ila allah taala jubli ci jaamu yàlla waaw loolu muy def téye gi muy téye biiram ak lépp lu taxaw taxawayu biir téye gi mi téye am pëyam ak lépp lu taxaw taxawayam ci li tambule fenku fajar ba sobuk jant day ànd ak yene jaamu yàlla subhanahu wa taala su boba lay tuddu sawm muy koor biir nak lépp lu cey ag dafa am ci barab yu muy jaar yoo xam ne barab yooyu dañuy wax ne day taxaw taxawaayam lu mel ne gimiñ lu mel ne bakkan yooyu ay cër la yoo xam ne day taxaw taxawaayu biir nga xam ne nit ki dafay fexe ba dara du ci jaar ngir jàll ci biiram walla lépp loo xam ne rek bépp cër boo xam ne dara mën na caa jaar ba àgg ci li ñuy tudde almaida maanaam àgg ci ak mbàqam loolu day taxaw taxawaayu biir su ko defee loolu mooy asaw maanaam téye boppam al imsaaku an sahawatayil batni wal farj kooku moom mooy taarif bi gën a gàtt ci koor loolu nag kooru ngàtt nga kooru farata ci yemoo saa bu nit ki jógee daal ngir jaamu yàlla ci ci ci koor moom ñaar yooyu da di téye di tàmbalee fenku fajar ba sowu jant léegi nag bu dee ramadaan ramadaan weer la woo xam ne ku ne xam na ni sunu borom ni mu tëralee jamono inna iddata shuhuri inda allahi isnata ashara shahran fukki weer la ak ñaar mu tànn ci wenn nag sàkku ci ñun bu dikkee bu ñu gisee weer wi ñu um fan yi mat wala bu ko gisaatee ci ñaar fan ñu doog a wari ne li tax sunu borom li tax ñu tudd ko Ramadan mooy dafay lakk ay bàkkaar su ko nit ki dundalee dama ko war a dundalee lépp lu mu fàggu woon ci ay bàkkaar weer wi daf koy lakk sunu boroom xamal ñu ne weer la woo xam ne am na ay xew-xew yu ci xew waaye li ma leen ci digal nag képp koo xam ne ñëw na te fekk la fi te amuloo benn ngànt na nga ko woor chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan doog caa teg na nag fa man shahida minkum shahra falyasumhu képp ku ko teewe soo soo feebaree nag nga jàppal ko idda bu daan jàllee ba nga wér nga fay bis yëng cee wóorut wala bu fekkee weer wi nga wóorutoon weer wi loolu suñu borom jox ci weer wi ngir ñu woor ko jox ko ñépp dafa am ñu war am ñu mu warut ki mu war su ko deful day am bàkkaar ci ñàkk def gi ki mu warul nag su la ba def ko du tee suñu borom bindal ko tuyaaba waaye ñàkk ngaa def moom bàkkaar du ko ñu fekk kon ñàkk laa war teewul boo ko defee mën naa wér te mën nga am tuyaaba waaye war la nag moom bu xasee am ñàkk ngaa def bàkkaar rek a ciy juddoo ak i daan moo tax ñi jàngale li ñu tuddee fiq muy école boobu nga xam ne mooy jàngale xam-xam bi lay xamal li ngay jaamoo yàlla xam-xam bi lay xamal ni ngay jaamoo yàlla nga xam ne jaamu yàlla bu mën a doon daf lay tëralal nanga ko war a defee war-war ya ponk ya sunna ya yañ ca sopp yañ ca sib ya koy yàq ba mu jeex ñi tëral xam-xam boobu wala boroom xam-xam yooyu dañ ko wutal ay shuruut maanaam ay sart am na ñu tuddee wu wujub sart yoo xam ne bu dajee ci nit ki rek na xam ne woor war na ko am lu ñu tuddee suruutu sixa sart yoo xam ne bu dajee ci yow ginnaaw bi mu la waree ba noppi bu dajee ci yow boo waree koor gi wér ndax koor mën na laa war nga woor te koor gi du wér ndax sart yi tax mu wér daal dajewul ci yow am lu ñuy tuddee nag suruutu sixati wal wujub wala suruutul wujub wa sixa sart yoo xam ne day tax mu war la ba noppi boo ko defee mu wér sart yi tax koor war la ba ca njëkk mooy lu ñu tuddee albuluux mooy kàllafe nit ki day nekk mu kàllaf nga xam ne la ñuy tudde alxitaabu taklif yi xam na ne léegi bokk na ca ñangi suñu borom di waxanteen ci kàddu googu su nit ki nekkul mu kàllaf nag woor waru ko waaye su ko mënee ba def ko tuya te fekk sart yi tax koor wér daje na ci moom mën na ci am tuyaaba kon gone koor waru ko te sax dañuy wax ne kenn du ko ko digal ndax dañuy bañ mu jural ko ak néew doole ni ñu sàkkoo ñu teel a diggal gone yi julli loolu sàkkuwuñ ko ci koor koor moom dañuy bëgg ba gone gi ñu ñu bàyyi gone gi ba mu dëgër ba nga xam ne bu ko defee it du ko jural ak néew doole bu ñu ne kàllafe nag mooy nit ki genneeku yenn yi ci boppam benn mu am fukki at juróom-ñett muy góor muy jigéen su amee fukki at ak juróom ñett yu mat sëkk kàllafe na su fekkee dafa ixtilaam dañuy wax ne kàllafe na mooy dafa gént di jaxasoo su fekkente ne dafa sax kawarug naq kàllafe na bu fekkente ne jigéen la te mi ngi gis mbaax wala gis nañ ci moom ab ëmb ba tey dañuy jàpp ne kàllafe na kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy wane ne nit ki kàllafe na su kàllafee nag benn sarta ngoog ci sart yi tax koor war ko ñaareel ba mu am kàttan ci woor ndax nit mën naa doon mu kàllaf ba noppi amul xudra ci woor bu nekkee aajis nga xam ne dafa tële tële it ñaari anam la am na lu ñu tudde al aajsu al xaqiqi am na ñu tudde al aajsu al hukmi ki nga xam ne dafa tële buñ xoolee atteb ku tële la amee waaye moom jëmmi boppam tëlewul ak ki nga xam ne nag jëm mu jee tële dafa mënta koor dafa mënta woor kooku woor du ko war ki nga xam ne nag dafa tële xokku man rek waaye jëmmam tëlewul mooy jigéen ji nàmpal wala jigéen ji ëmb moom wër na ko ni mën naa woor jigéen ji ëmb wër na ko ni mën naa woor waaye ku ne ci ñoom ñaar kii nàmpal ragal na ni bu wooree mën naa jural lor xale bi muy nàmpal ndax mën naa manqué meew mi muy nàmp ki nga xam ne dafa ëmb ragal na ni bu wooree mën naa jural lor ci li nga xam ne mu ngi ci biiram ñooñu dañu leen di jàppee ñu tële waaye nag xukku man rek du seen jëmma tële waaye dañoo ànd ak ñoo xam ne nag bu ñu wooree ñooñu loru ñooñu am nañ gànt ci koor waaye nag toxul koor wàcc leen de taxul koor wàcc leen ku ñetteel ki mooy li ñu li ñuy wax al iqaama maanaam ki nga xam ne dafa dëkk ci dëkk bi nekk ci dëkk bi tukkiwul demul fenn kooku moom dafa bokk ci sart yi tax mu war a woor ki ne cib tukki woor war na ko waaye nag def maanaam defal nañ ko ruxsa defal nañ ko ruxsa ci mu bañ a woor bu fekkente ne mi ngi ci tukki bi te tukki ba doon tukki boo xam ne siifo ba muy dox mat na tukki wàññi masalan juróom-ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñaar am nañu ko ci tënk am ñu ko tënk ci juróom-ñaar fukk ak ñaar su ko xasee mat nga xam ne sañ naa wàññi julli yoon may na ko mu sañ a bañ a woor ci tukki boobu waaye nag tukki boobu dañ cee sart na nekk tukki bu dagan na nekk tukki bu dagan bu dee tukki boo xam ne tukki mooy yàlla la sëñ bañ a woor te it na fekk mu fanaanoo yéene ji maanaam du xëye këram ne ci tukki bi rek ba yëg ci boppam aw mar wala ab xiif wala tàngooru jamono mu bëgg a dagg kooram ngir ne yoon may na ko ko déedéet ba muy waaj ngir war a dem lay fanaanoo yéene ci nga xam ne yéene moom mooy ñàkk a suba ngir tukki bi nga xam ne ci la jëm tey tukki boobee na fekk mu tàmbali ko njëkk fajar ba muy génn këram na fekk fajar jotagut yooyu yëpp ay sàrt yu dajale ci ki nga xam ne day tukki te yoon may ko mu baña woor waaye li ko yoon di may may nag suñ borom nee na wa an tasuumu xayrun lakum loolu yi kat ruxsa la waaye nag bu ngeen wooree mooy la gën ci yéen kon ki ne cib tukki te yëg ne mën naa woor ruxsa boobu moom na jàpp ne am na lu ko gën te mooy mu woor ndax loolu suñu borom wax subhanahu wa taala moom moom yi nga xam ne mi ci tukki bi nag ba yoon may ko mu wàññi du caagi ne bis bi muy tukki rek la ko yoon may diir boobu mu nekk ci tukki bi ñaari fan ba ñetti fan yoon may na ko mu bañ a woor waaye su demee ci barab boo xam ne nag yéene na sax ñeenti fan mooy lañ maye woon ca wàññi julli rek bu fa yéenee sax ñeenti fan day war ci moom mu daal di woor loolu mooy li ñu tuddee surutul wujub mooy sart yi nga xam ne day tax woor war la ak it nga nekk ak jullit yéefar bi nag ki dul ab jullit usuli yu nay nee nañ woor war na ko waaye bu ko defee da dul wér ndax xitaab bi moom ñépp la ko suñu boroom boole ak ñàkk ma gëm yàlla nag moo tax bu wooree du wér ndax duggagul ci lislaam sart yi nga xam ne mooy tax koor gi wér boo ko defee ba ca jiitu mooy al àqulu nit ki day ànd kom xelam buy woor ab dof bu wooree koor ga du wér ku xëm ma ne kuy crise nga xam ne njëkk fajar la tàmbali di crise ba fajar fekk ko ci walla bi fajar di jot la daanu crise ànd ak fajar gi kooku bu wooree koor ga du wér su fekkente ne it fajar weesu na ba noppi mu doog a daanu crise fuqaha yi dañuy wax ne bu fekkente ne diir bi nga xam ne ci la nekk ci xëmteem loolu suñ ko xoolee ëpp na genn wàllu bis bi koor googu du wér su fekkee nag mëtul genn wàllu bis bi koor googu dana baax du jar mu koy fay foofu am na loo xam ne ak seeguñ ci li ñuy tuddee fiqhu nawazil dañ cee tàbbal ñi nga xam dañ leen di anesthésie di leen defal opération rey seeni cër wala rey seeni yaram ba nga xam ne dootuñu yëgati dara mel na ni ñu tàggoog seeni xel dañ leen di tàbbal ci biir atte boobu su fekkente ne waxtu fajar la wala bi fajar la jot fekk na loolu nekk ci yow wala diir bi bi nga ànd ak moom daa ëpp genn wàllu bis bi su boobaa sa koor du baax waaye lu loolu rek mën naa nekk te du yàq dara ci sa koor ñaareel bi li tax koor wér mooy an naqaau min damil min damil xaydi wa nifas, bu dee jigéen na fekk mu set ci dereeti mbërëg moom la wax régal na set ci dereti wasin bu mu ci ànd ak dara su ci àndee ak dara bu kooree koor ga du wér ñi nekk ci loolu bu ñu wooree koor ga du wér waaye nag dañuy sàkku ci ñoom bu koor gi jàllee ñu fay koor war na leen waaye bu ñu wooree koor ga du wér am na ñu ne waru leen waaye bu koor gi jàllee dañu ci sàkkuwaat ci ñoom waaye jàppal ne ko li gën a li gën a simple rek gën a neex a jàpp mooy bu ñu wooree koor gi du wér waaye bu ku ci set da ngay fay bis ya nga xam ne moo la fekkoon ci biir koor gi foofu nag am na ay leeral yu am solo ndax jigéen war na di nemmeeku boppam bu fekkente dafa gis uh, mbaa Ya مكرم دي في جارا kana وزارا يا معي من قبل أزارا